Il Sénégal di confusion il est vrai que nek nañ ci société société de liberté la société nit ku nek nga wax la la neex bu du yakal kenen ka kon bu problème rek ñu gis ci politique comme Macky Sall je contre duma ci le président Macky Sall citoyen kooku suñu serviteur la li muy gérer ñun ñëpp ñoo ko moom ñun ñoo ko ne xoolal de telle période ba ba période bii demal nga jiite ñu doxalal ñu bu nu àggatee ci beneen période su fekkee ne am nañu lu ñu neex ci yow ñu continuer ko buñ ko kiwut ñu ne la hé li ñu la joxoon jël nañ ko kaay ñu jël sa beneen morom mu dem fa comme li mu yor moomu ko muy benn. deuxièmement le président Macky Sall moom du mooy décider ci li xew. dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañu nekk ay docteur nekk ay professeur di bind ci revue yi di dem ci bitim réew ñu bare ngi nekk ci yeneen réew yi fii lañ leen jàppale ñoom jàngal leen ñuy Tunisie ak ay Maroc ay fu fii lañ leen jàngale kon ñii ñu yor ñoo am xam-xam bi ñoo yor dogal yi ñoo ñëw ne président Macky Sall léegi ñun dañoo bëgg nga tëjal ñu tel quartier confiné ñu ko ou defal ñu couvre pour telle période bu ko defé ñom amuñu dogal imposer nit ñu couvre président Macky Sall mi nga xamné bi le mom la constitution bi may ne ko yow yaay jël arrêté ba nga jël décret bu ko defé kenn dootu dox telle heure kenn dootu gën telle heure defal ñu loolu mom mu def loolu parce que loolu la man kon nañu xamné du mom moy décider ci vaccin du mom moy décider ci mesure ña war décider ci mesure yeen ñep xam ngeen leen moy ñom professeur yi ak ñom professeur boobu Eva Marie Coll Sek ak ay mam Thierno Dieng bu hôpital principal ak seeni nantango ñooñu ñooy décider parce que ñooñu ñoo jàng ñoo am xam-xam bi kon décision yiy jóge ci ñoom buñ ci gis mbiri politique nañ ko nangu ca itam ne duma wax si newul dama bëgg Covid bi gi toog pour que loolu wàccewul président bi ca mi ngi rey ay nit ca mën na laa rey yow mi koy wax mën naa rey sa mbokk ca mi ngi koy def mi ngi rey suñuy mbokk mi ngi rey suñuy dëkkandoo ca ñii ni ñii ñu ngi dund di konne di yor réew mi kon loolu ne nit ñëpp am xel fañ war a xeexe mooy ca carte ya bu ñu demee ci élection yi di fa joŋee foofa la xeex ba nekk fii ñun ñëpp war a boole suñu doole pour bu xeex mbënd mi fi nekk te am nañ ay scientifique yoo xam ne yii lépp loo xam ne lii mi ngi xew ci affaire vaccin yi réew ma mu jóge vaccin ba composition ban ca def ak yooyu yëpp ñoom danañ ko xool te ñoom daan ci ñakku kon léegi nañ ko def suñu ñii nga xam ne bi lee ci école yi lañ génne formé ñu bari yóbbu leen feneen li leen nit ñi ëppalee leen dong la moy seeni réew dañu am ay plateaux médicaux mais xam-xam bi fii lañ ko jëlee ñu nekk Tunisie nekk Maroc fii lañ jàng ci université de Dakar ban demee seen réew tegal leen ay plateau ñi leen doon jàngal fii di jël seen ay malade di leen ko yónnee di wax yow maa la jàngaloon fajal ma sama nit kii. parce que kooku am na plateau bu ki ko jàngaloon amut mais affaire vaccin bii ñoom ay virologue lañu ñoom ay scientifique lañu de renommée internationale kon nañ leen wóolu ngir yàlla ak yonent bi.